nan sant yàlla sil xadar di sàkk laylatul xadar te sant maymunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan jàpp kii di soxna may bu deere deer ngir moonu may xiiwal yu doy te moonu may njariñ ci laylatul xadar nee na xamul moom benn bis na li mu xam mooy benn bis te moo di xadar nan xam ni soxna may xadim faaxat li kulli sil xadim li anna bintul xadim tey waayi laylatul xadar su ngeen ma dégloo xamal leen ci mbiram lu xamul xam ko nu war li nu am ci laylatul xadar soo ko jibee mu daadire te soo waxee mu daadire lum waxitam day daadire yayoona laylatul ba mel ni mbambulaan tabe ba mel ni ak sayaan waa mel ni romb nag sayaan yaatal na laylatul xadar du tudd nit ki fu mu du la digit lu mu narul te du wax lu mu xamul moo fonk laylatul xadar moo woote laylatul xadar ci amatam xasin bu wér loolaay juróom fukk yu wér ci laylatul xadar ganaar la togg ba mu ñor def ko ci ndab yóbbu ko kër seex fallu mbakke ngën ji mbër ci guddi laylatul xadar ganaar la togg ba mu ñor daf ko ci ndab yóbbu ko kër seex fallu mbakke ngën ji mbër ci guddi laylatul xadar bi soxna may yegsee ci taxaw fa buntu badiim Cheikh Fallu ubbi yem ca moom laam nga nee li sil xadar Cheikh Fallu dal di koy dogul ni lépp luy xeetu ndawal xamal ni din ko di amal ci guddi laylatul xadar ni ko xamal ni luy ganaar danga ko weesu ram mboxar naka gëneem danga ko defar ci guddi laylatul xadar mooy ray nag ba wullu sab moom ba wullu meem jàngulu alxuraanul karim ci guddi laylatul xadar fonk moo waral mu raw mbooleem diggante ku dootu ko jot na moo fi raw moo fonk laylatul xadar guddi gi mooy guddi gi gën may muuna tooy sang bi gën fonk li gën mooy taxa gën moo fonk laylatul xadar fonk gi na ko barkeb weeru koor ndamaam ci barkeb weeru koor lay defe laylatul xadar yàllaa ni laylatul xadar xayrun min alfi sahri far Bamba jox ko caat ma muy woote laylatul xadar man moo di jóob di taalubeem maa way bayti ngir maham ab yaal bu rëy te bëggam nga ne li man abdulaat di taalube maa way bayti ngir maam ab yool bu rëy te bëggam nga ne karim bégal na say xinaal xadim ndax fonk laylatul xadar donn na Fatima bu wér na Aïssa bu wér na Mariam bu wér na laylatul xadar joxoon na alxuraan ngir baay alxuraan yal na ko fay ci alxuraan ci barke laylatul xadar te yàlla fay taaw ba itam dafay sëriñ moodu rakam ak seeni doom ak i sëtam amin ci laylatul xadar kon soxna baali baali baali lay boole togg def ci ay booli jox ndijaay jami xoole day ya soxna Maymuna baali baali lay boole togg def ci ay booli jox ndijaay jami xoole day ja soxna Maymuna baali baali lay boole togg def ci ay booli jox di jaay ja muy xoole day ga soxna may muune soxna baali yaa jara way mbakke balla yaa jara kañ moo taxit ma lay bëgg way mbakke danga farlu soxna baali yaa ami may mbakke balla yaa ami may baali baali lay boole toggu def ci ay booli jox ni jaay jamuy xoole day je soxna Maymuna Cheikh Moustapha noon na ma sun baay Cerno mooy Cheikhu Bamba moo yoroon maam Cerno soxna Maymunatul Mbàkke nee na Seex Fallu moo ko woolu woon faaliya ma ñëw mu am salaamatan waafiya may bëgg a toog fi suuf mu jox ma ab dal ni ma toogal yaay ku kenn dul siis sa bay ñor le toog di séddale moom rekk moom ñam ñu toog di dana ba mu jógee jëf ji di sàkku lii mu du doom du taalubeem du mbokk mu ma Bamba yàlla nanu musal musal nooy yokku sunuy fan nu yor noo mana dox tey bañ di soox bu nu xuloo mu kaka xeex te yàqkat yi mel meex Mbàkke bu nu manal mukk dara nan man dox tey di soox bu nu xuloo mukk ak xeex mbàkke te yàqkat yi mel meex buñ nu manal mukk dara seen mbokkum taalibe Abdou Lahad Guèye Abdou Lahad Seye Guèye jànkatu soxna may mënatul mbàkke moo doon leeral way di ko jot li bëgg taalibe bu ko dégg muy sax paju aajo taalibe bu ko dégg nag nu ñaanal fan bu gudd ànd ak wér numéro téléphone bi nag ma ngi nekk 76 754 45 08 nu fas ko yéene nag di sam soxna Bally bu baax a baax ndax bi màggal gi bi soxna may wàccee liggéey ba léegi màggal gi ñoo koy fanaane ci wàllum xasida kon ñoo ngi koy sant di ko ñaanal di gërëm yàlla guddal fanam wér ko barke Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Abdoulaye Say Gueye